أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن gise kon jéggi na day day lool ci ak mooy yàlla gis bu nga dégg na rey nañ nit barab sàngam ci lu ñàkk solo xëccoo gi addunay kese umaalante gi xeebante gi ñàkk ko gi jalgati xàq jàmbur ñàkk war ma ci koñ war a warmaal xawi gi sutras jàmbur wala ko xamal sa morom dara lu ñaaw weer ko ci kanamu àdduna muy ci ci internet bi yooyu yëpp day mbir yoo xam ne ñu bari ñu bari amatuñu kilifa ñi am kilifa di ñu ci ëpp topp duñu seen ndigali kilifa bari na lool ba mënee su lim mu yàqu tege waxaral fasaadu fil barri wal baxar maa kasabat aydi naas li yudiqahum ba'da allati amilu la'allahum yarji'un sun bam neen yàqu tege feeñ na lool fees na lool ci jéeri jeeg géej gi te lépp loxoy nit ñi rekk ko fàggu waaye sunu moom léeg mu indi mbiram lii day xam baax dal si ba tey gis nga fi li muy seet mooy baax dal si kon tëpp ñu lépp waaye baax mooy lenn lenn ci liñ jëf la ñuy mosal tuuti ngir bëgg rek ñu dellu dellu gannaaw laa alum yar joon ngir bëgg rek ñu del ñu ñu xoolaat sunu gannaaw delluwaat ci moom yàlla subhanahu wa taala loolu sëriñ bi doon junj ci li nu nekk muy sikki sàkk ak weddi ak deng-deng ak ngëlëmteeg réer loolu nag saa su amee sunu bam fàtte noonu boppam te sëriñ Saalihu daana wax ne yàlla de ko ko fàtte yërmandeem a tax waaye comme fàttali boppam danga ko fàttali ko moo tax moo xoon ne xanaa gisuñu ne sun sun ba mu wax ne xanaa gisuñu nit ñi xanaa gisuñu ne at mu nekk ma naa leen benn wala ñaari yoon lépp ngir bëgg ñu fàttali ko dellu gannaaw tuub waaye du tax ñu tuub du tax ñu dellu gannaaw tax ñu fàttali ko awalaa yarawna anum yuftuuna fi kulli amin marratan aw marratayni summa laa yatuubuuna wala hum yadakkaruun fi na nag saa su ko sun borom tegee aw jaam ñu dellu ci moom tuub la su te rafetal faruk seeni bàkkaar day doon ndax li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne nafsi bi yadihi maa yusibu lmumina min nasabin wala wasabin wala hamin wala xusn illa kafarla anhu biha min xataaya xatta shawkata yushakuha nee na ci kenn sama bakkan mi ngi ci loxo muy amul leen luy dal ab aji gëm moo xam coono la wala jafe-jafe la wala njàqare la wala tiitaange lu may suñu borom dana ko ca dana ko farale ca loole ay bàkkaaram ay ñaawteefam ba ci déggu ko jam sax déggu ko jam rek moo tax sëriñ bi ca ne nu war a jugaat seet sunu bopp xool sunu tolluwaay war a delloo lépp ci sunu borom ndax mooy def mooy dindi moo xam li muy def moo xam ni nga koy defee moo xam li ko tax di def ni nga koy déggee mooy teyit eh, mu tekki ne nun kay dana war a góor góorlu rek ci gën a xam lin ñu digal nu nekk ca te sax ca dàkk gën a xam li ñu tere nu di ko daw sunu xelu sunu xelu bakkan loolu mooy sunu wërteef foofu na lay mbir mi nekk jëfe ndigal ak bàyyi tere ku la raw ci la la rawee xanaa xamoon ni iblis li ko dal lépp mooy ndigal rek moo ko teg mboolem xeet yi yàlla alak yépp mooy ndigal moo tax ma alak leen képp koo gisit mu am ngërëmal yàlla topp ndigal moo ko ko may Cheikh Ibrahima Fall lam am la muy rëy rëy rëy rëy topp ndigal rek ko ko may Cheikh Issa Dieng Sëriñ Mbàkke Buso Sëriñ Daam Abdourahman Lo Sëriñ Daru Xasan Njaay Cheikh Masam Diop Sam ila axiri yi mëneesu ko lim ñi sëriñ àndoon na Sëriñ Tuubaa ñépp am ngërëmal yàlla ñi àndoon na Sëriñ Tuubaa ñépp am ngërëmal yàlla te topp ndigal rek leen ko may topp ndigal képp ko te tey jii nag mooy li te tic te moom rek tax a jariñu nag lu dul ndigal amul njariñ te xamal ne ab sëriñ du bëgg nit ba fam njariñ jox ko te toppul ndigalam loolu suñu bay jaxati ma ko wax dëgg la nag bëgg nañ lu baax lool dañ ciy góorgóorlu it kem kattan waaye danoo bàyyiwut lu bon te jiwu nag su rafetul doo ca mën am gàncax gu baax xabu xabusa laa ji yaxruju illa nakida Sëriñ Tuubaa bi mu nekkee Jolof dafa masa woote ba ñëpp ndaje mu ne leen li daale fii fi Jolof ba fa gën a sori ci Saalum ñi bëgg lu baax nee nañu gàññ lu baax te leen wax ko ñett yoon ne ndax xam ngeen lu tax ñu ne ko déedéet mu lu baax dane duma ànd ak lu bon lu bonit ne duma ma ànd ak lu baax yàlla mi leen boole bi ne ne du ma leen boole nit nag moom jóg fa yéene jaxas lu baax ak lu bon ndax ndax xam ngeen jaxase lu baax ak lu bon nu mu mel ñu ne ko de mu ne mi ngi mel ni yow mu ràbb sa ngunu lu fàtt taraj duy ko sa muusi siiru ba mu fees ngay kër këre ba am sa genn gën a dugal ko fi ne danga koy yar ne ndaxam moo soo soo wubbee muusi siiru yi ne jawwu nga fay fekk daan noonee muusi siiru yi def ganaar ga noonu la jëf yu bon yi def jëf yu baax yi ne comme ba leen jaxasee lu baax ak lu bon si si mu taxaa teg ci ne sëriñ bi moom dara indiwu ko fi woon lu dul jaamu boromam ni mu ko war a jaamoo liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi ni mu ko war a liggéeyale fi ñu ko gisee ba fi ñu ko noppee gisee ci loolu rek la nekk kon waruñoo am benn xalaat wala genn tiitaange wala nuy togg sunu bopp jenn fitna bu nu xënte wa dara lu nekk ci li nu war a nekk muy sax muy sax dàkk ci jàmm yàlla sax dàkk ci liggéey yonente bi ni ko doon defee diggam ak boroom ak diggam ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li ñu ciy déggee mooy nu xam ne indi wuñ nu fi ngir ab noflaay indi wuñ nu fi it ngir fo ñaanoon na sëriñ bi ci njalbeen ba ci mucc eh, teluñu koon ñoom musuñoo noppalu jenn jamono te lañ daa sonn lépp lu am njariñ la daa doon ca lam nekkoon di boroomam ca la leen nekkuloo ca yar itam te loolu rekkit la fi bàyyi kon mooy sunu ndono te li sunu wëttéef nag mooy sàmm ndono lool yi ba jofal ko ci ngën jaa rafete anam gannaaw sëriñ moom bi nga ko gisee bu ñu ko noppee gis tëlu fi dara lu du boromam ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi naan kon lu lu nu doyadi doyadi ak lu nu ñàkk-ñàkk solo war na noo xam li nu am war a xam li nu fi sëñ bi bàyyil mi sunu ndono te loola mooy wéetal yàlla rek sax ca dàkk ci jaamu ko te xamit sëriñ bi fas yéene nekk ci lim nu nekkaloo te mooy lan nekkoon rek ak lum nu ko sëkk ndax fàggul nanu lépp lu mu la war a fàggul tey ëllëg lu war a lu war a ñaan boroomam tey ak ëllëg ñaan na ko bu dee pàggu teef gi juboo na ceeg boroomam bu dee ñaan gi boroomam nangul na ko ko kon loolu li nu ci li ci war mooy nu gàttandu ko niñ koy gàttandoo nag mooy tuub dellu ci yàlla rafetal ak jaamu sunu digganteeg moom rafetal yi sunu taalibe bi sunu digganteeg sëriñ bi jéem ko delloo njukkal donte mënuñu ko waaye nu jéem ko ak sunu kem kàttan ci wéye ndigal ak bàyyi tere ndax wax na ne lakum talabtu minhu gufraanan yadum tuubu ma an li rabbina al baaqil qadim sàkkul naa leen ak njegal fa yàlla waaye na ngeen ko gàttandoon ak ci rafetal ak tuub ak dellu ci moom eh, kon ñu xam ne kon eh, waxtaan fees na dell ak i bind kon ne ma ko waxee mënta jeex tey kon dañ koy tënk foofu incha allah nag bokk yi ñëwaat ci sunu gannaaw incha allah dañ dañ dañ dañ fi ñu ci am dañ ko ko jàllale nga xam dafa fees li muy gàtt gàtt dafa fees dell ak i bind fees dell ak i maana ñaan sunu boom mu yàggal mu yàggal ko fi sunu kanam lool te wéral ko baagale mboolem ay naalam ak i yéeneem yàlla na sunu boom boole dimbale boole defal tawfiq xiir nu ci njub te saxal nu ci te def nu dëgg dëgg taalibe sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa nangu nu sunu taalibe wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu